ndeysaan ndeysaan Alsaan Laay Sarr Alsaan Laay Sarr Laay design ma nga ca Kër Mbay Fall Laay design euh, ma nga ca Kër Mbay Fall ndeysaan Kër Mbay euh, Mbay Fall bëri na ay naanaan de yoo xamante ni tey jii ku ci ñëw di nga ànd ak Alsaan Laay Sarr amul feneen fu la design jàmbaar la ah waaw ma nga dëkk ca ca Tol Jazz ndeysaan ah ñu koy nuyu flocage yu rafet lay defar waaw waaw waaw ñu ngi koy nuyu bu baax ndeysaan ñu ngi nuyu ah Moussa Thiam borom Lamp Fall waaw Moussa Thiam kooku suñu waay la. waaw borom lamb Fall ñu koy suñu mbokku taalibe la. kooku sàmm ngeen rey baayam. nañ ñu de Sadio mu gaaw. kooku ñu koy asamaan si neexul. mais c' que ni après la pluie c' est le beau temps. c' est le beau temps gis nga lii da nga gis ni démb bi mu tawee ba léegi. Ah. waaw la yor ah ah, buur te bëri yërmande. mais yàlla yàlla suñu borom. lépp loo xamante ni def na ko. bilaay xamal ni lu gën la. bilaay ndeysaan yàlla du def lu gënul. moo tax lu mu mën a lu mu mën a demee. waaw ak lu mën a xew. waaw alhamdulilahi. waaw kulli xaal war na ku ne. bala ma bala démb. waaw ma wax loolu doy waar démb. waaw. sama kër kër gu mu waaw benn femme bu fa feebar. ndeysaan ñu koy wax euh, Awa Cheikh Diagne. Awa Cheikh Diagne dem mu feebar. feebar bi daaneel ko ci bi muy taw. waaw mais pour mu génn ginnaaw raay problème la problème la loolu dafa grave. mënuñu génn fenn deux heures de temps ko ci biir ginnaaw raay mënoo génn. mënoo génn. ñii baare baare yoon bi. waaw ñii baare beneen koñ ñu dem beneen koñ ba si sa koñ. amul fu oto jaar sa koñ sa bundu kër lañ mujjee jaar dem. laataa ñuy egg mu wàcc. amul fa oto jaar oh, amul fa oto jaar dim te des fois bu tawee tunnel bi dafay fees dell ak ndox. laataa ñuy egg mu wàcc liggéey ci biir oto bi. mais loolu métti na. nii ñu ko téewee nii nii ñun mënuñu ci dara. maara day taal def dara kon bu catastrophe amee ginnaaw raay des fois bu tawee. mais day doy waar. mais xam nga daa dinañ évacuer ndox mi. waaw c'est vrai ni canalisation yi yëpp. am na ci biir ginnaaw raay mais ba tey daf ci am ay ruq-ruqaan yoo xamante ni bu tawee waaw amul ay canalisation am na yoo xam ne dañuy baare yoon pour ndox mi ba ñuy yëg si ah. bu dee ci tunnel bi nga xamante ne fara oto yi war a jaar bu tawee yenn taw yi day fees dëgg la kon donc il faut nu jàppale nu dimbali waa ginnaaw mais war na di am oto boo xamante saa bu tawee ba pare ñooy ñëw di manque ndox mi manque ndox mi vite fait mu génn du yóbbu nga xam ah. ne day gaaw a génn ah, loolu moom itewu ko lool mais mais ñu ngi koy jaale seen waa <coughs> Euh, di ko jaale mère Sara nekkoon ku baax moo ñu jaay moo moo ñu doon jaay ay ton ak maynees de Sadio nga fi fi Sadio ko bëggoon a faax laay mais ana bu nga ci dafa ni bëri dafa xaw a yeex laay ndeysaan parce que ci la mais Is that what we need to be? Gracias. nga jàpp ko jëm ko mais mu jig laajal ba ma cam bi fu ma fekk damay nelaw ndax daj ay coono billaahi wallaahi wa taalaahi li may entraîné amul sama benn morom bu koy entraîné man damay génn Sénégal di dem entraînement ba may génn Sénégal di dem di entraîné boobu xale bu ndaw laa gars yi léegi lañ gis may génn nii rek di sant yàlla bu baax a baax lépp suñu borom la di dolliwaat di ko sant billaay wallaay di sant tamit waa ginnaaw raay sama yaay tey daa wax ak man bay jooy ne ma bu la neexee bul yàq sa xaalis benn sëriñ barki Seydina Muhammad tey da ngay am ndam waaw mooy loolu. mais mais mais combat bi xeexoo ci benn yoon. non combat waa ginnaaw raay dañ ne ma teeyal. Ah. parce que làmb dafa am essence ni fu mu toll. te maanaam sa ñëwaat si làmb dafa jot. Hmm. kon jaru ngay nekk di yàq sa yenn kii wala genre yooyu noonu. moo tax ma ñëw jël sama temps rayante ko waaw mais maa ngi sant mbëru Guinaw Rail yëpp Prince Boy Waranka xam nga Valdo jàmbaar la maa ngi sant sunu ko si naar zo jigo xam nga euh, Abim Ndiaye sunu ko nuyu naa ko baax yamul lekk si entraînement préparation bi métti woon waaw préparation bi métti woon na parce que man su ma toogee maanaam xool waa Guinaw Rail ni ñuy waajee combat bi si bàyyi si ñaari defet laa waa Jéegi waa Jaafiraaf ñoom fol ndaw kooku maak moom ñoo ànd xale ba mag billaay wallaay chaque jour mu waxal ma une minute na ma ngaraaf li nekk si yow su dañee lamb yëpp yaa si mën te ay sëñ Assane sëñ Assane day bàyyi temps di ñëw dinu tuwaan pël apix chaque jour di ñëw Michael nee na bi kombaam la mais sant naa ñëpp ñoom Zallo ñambe xama Cheikh Sarr sama Cheikh Laay Fall am am Ndiaye sant naa ko bu baax a baax gërëm naa ko xama ñoom Baye Zall gars yëpp waa asalem ñoom daaya xama ñoom Tony ñoom ba Habib. mais Cheikh Diamaguène ana mu. Cheikh Diamaguène sa nit moo la jox iPhone 14 yàqale ko Baye Balla mu jox ko 14 daal li nga mel. mooy yoon de. Fallou Yadi sant gërëm naa ko la jógee ñëw pour combat bi kese yàlla na ko yàlla defal jàmm. Saliou Sarr Saliou combat bi yëpp combat waa Saloum waa Saloum yéen laa may combat bi Seck Saloum Souleymane yéen laa may lamb ji ak Mansour Polisson Mor yéen laa may lamb ji Baye Balla kontaan naa. mais maa yow nag li ñu waxante woon daf ko de ah. naa la de. incha allah léegi yow adversaire yi. Ahmed Ndiaye tamit maa ngi waa ñambe nee ñambe xam man moom laay topp moom mooy sama encadrement presque moom rek mooy sama staff ndax moo naan defal ma de moo naan bàyyil ma bàyyi nee na nañ jël qualifier 2. léegi nag qualifier 2 ñu bëre waaw. nee na nañ jël qualifié 2. qualifié 2 10 na na ñëw rek ñu bëri. barki Seydou naa ma ko man suñ ma jàpp si gàllaaj lamb ji maa si mën. qualifié 2 maa ko mën suuf yéen a jàpp ne dañ la jàpp ci damay ñëw ñu yomb ba ma ne mais loolu léegi dañ na de. Eh. les gars yëpp looy xoolee ba lay jàpp. les gars yëpp jug nañ. mais mais gars yaa tëj saison bi tey tey saison bi tey la tëj. waaw nga ko ak ndam tey nan la la def. waa di sant tamit suñu waa écurie di leen sant ñoom Pérez sa Baye Sall ak gars yëpp gis naa contact yi mais di sant Eumeu Sène bu baax démb si guddi barki alxuraan woo na ma presque trois heures de temps. billaay wallaay wa taalaay mu ne ma ngaraaf suñ la daanee da ngay bàyyi bëre parce que maanaam nekkoon nit bu ñàkk jom bul wane ñàkk jom dama nga wane ni góor nga gaynde nga demal nga daanal ma kii nga ñëw. billaay wallaay moo jabaram xuja xaalis bu bëri lañ ma yónnee. yàlla na leen yàlla defal jàmm. billaay wallaay wa taalaay Bathie Seras moom laa tuddee combat bi man léegi may Bathie Seras numéro 2 Bathie Seras rek laay topp. gars yi nañ ko tël bàcc séeraas a ngi ni mbës bu ndaw jërëjëf ndeysaan ndax moo neex métti na champion bàcc